war ngeen jàng aay yi ba mën leen a tari yàlla du gënale waaye ci xeet yépp ku ko ragal tey def lu jub moom la nangu jëf ya saar fukk aaya fanweer ak ñeent ak aaya fanweer juróom beneen yoon dinañ waxtaan ci mbirum taalibe yi ñu njëkk a tuddee gaayi kirist